a pas de monopole du patriotisme Nous savons que ñoo xam ne nii dañuy tëdd seen kër di 13h ñu yeewu lire journal def seen revue de presse Nous ngi dégg añ naan ba ñu exemple en termes de patriotisme ñoo xam ne fajar la ñuy xëy ci service askanu sénégalais 22h 23h ñu dem 6h du matin nekk dont loolu mooy seen responsabilité donc ils n'ont pas de leçon de patriotisme Sénégal ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko bokk ki jiite réew mi nga xam ne nii dafay heures par jour amul ku ko a daj coono ci ni réew mi lu koy doxal ak avancé et donc c'est très facile c'est très facile non je le c'est c'est le discours c'est le discours ce qu'on leur reproche c'est le discours c'est l'attitude c'est l'insolence c'est l'immaturité c'est l'irrévérence dans le discours. C'est ce qu'on leur reproche. Mais chacun a le droit d'aller voir les Sénégalais, de leur parler. nemmeeku Hol, xool ci jafe-jafe tu ci yan condition lañ nekk nga xalaat lan mooy solution yow yi nga am mais c'est ce qu'on attend nous les noo leen mais vous jàppale mais bu nous les Sénégalais yi mënu leen jàppale munoo wax wax bu rafet munoo joxe solution mais nga noppi yaa xayti les gens pourquoi non non non moi je ne parle pas des gens je ne parle pas des personnes moi je parle de principe je parle d'idées. je parle de de démarche je je parle de posture mais je dis dans des contextes actuels ce qu'il y a lieu d'avoir et ce qu'il y a lieu de faire moi, c'est d'avoir une démarche constructive exploiter la misère des gens en parlant de questions euh, vraiment accessoires euh, ci yoo xam ne nii tey imagine tey ci ngoon nii walla suba même quantité yi tawaat ci biir réew mi la muy indi ci ci ci ci jafe-jafe parce que tu le vois à la télé soo ko xoolee Amérique boo xoolee Japon ba démb maa ngi gis Niger 15 morts est-ce que loolu bu amoon Sénégal mais, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de changement climatique qui est en train de faire des ravages au niveau mondial. En Afrique, les inondations, vous avez vu hier le dossier de RFI sur les inondations et les dégâts en Afrique de l'Ouest. Mais quand il y a des phénomènes naturels, des calamités naturelles, moment c'est des consensus sur les questions Nous avons boole seen doole boole seen i ndimbal pour xool naka la ñuy euh, saafaraleyoo alléger jafe-jafe askan li les populations ont besoin ndimbal ñu jàppale leen jàppale leen xam nga koo ñëw bah, ku ndox mais mais mais absolument mais gis nga gis nga gis nga nit ngay acteur politique ngay acteur am na ñu dëkk ci gi boo demee ci banlieue bi am nañu ay ñu am ño xam ni yalla wërsegal na leen bu ndox amé amna ño ñoo ni ay chauffeur lañ ay chauffeur de camion lañ dañuy def sen camion à disposition amna ño ñoo ni dañuy jël ci sen doole bop ay moto pompe amna ño ñoo ni ne nii mën nañ louer moto pompe wala amna ño ñoo ni amnañ essence dañuy jël organiser jeunes yi ci biir quartier bi loué leen moto pompe jëndal leen essence lool lañuy laaj ci ko xam ni acteur nga ak li wax gëm nga ko bu dee nekkoo ci ngistal mais dem déplacer wu woo caméra woo télé ne damay dem seeti population yi indiwoo carburant utaloo moto pompe ñaari militant yi nga fa am utaloo leen moto pompe loolu du ndimbal askan wi on n'a pas besoin de ça ce qu'on a besoin c'est les zones sont inondées comment pomper l'eau rapidement ndox mi dem parce qu'on ndox mi boo génnee ay moyens pomper ko ndox mi euh, dem loolu maintenant maintenant ce débat ce débat inutile ce débat inutile et ce débat stérile sur sur l'échec où est-ce qu'il y a un échec un plan qui planifie un certain nombre d'actions phasées sur la restructuration urbaine, sur, le relogement, ce que le ministère de l'Urbanisme fait, ce qu'on fait dans le programme des 100 000 logements, tout ça, il faut le prendre et le mettre dans ce cadre-là.